effectivement pôle emploi euh, comme ni nga ko waxee donc période boobu noonu la la décret bi génnee. Mhm. parce que précisément sax le pôle emploi donc émane de décret présidentiel donc euh, numéro 2021 605 675 donc du 25 mai 2021 moom moo institué les pôles emploi entrepreneuriat au niveau du Sénégal. Mhm. mu nekk aussi dans un contexte boo xam ne brossé nga ko mais lépp lépp bu lu gën a large loolu parce que pôle emploi aussi c'est le fruit donc des réflexions. réflexion yoo xam ne dañ ko mënee tey au niveau des des collectivités territoriales donc dirigées par l' administration administrative ak li nga xam mooy à travers les sous-préfets les préfets et autres parce que dañu def constat euh, si la problématique de l' emploi damay faral di wax ni l' emploi c' est la patate chaude entre les mains hmm. donc de de de l' entre les mains de tous les états et le Sénégal ne saurait être exception ci loolu bu ñu defee jàngat ni emploi euh, am na euh, su su sous emploi am na Sénégal donc am na problème yu bari yi ci am ñu ne tey jii nii lan mooy li nga xamante ne mooy diagnostic bi bu ñu defee waxtaan yooyu noonu mu commencé si ay CLD mooy di comité local de développement sous préfet yi jiitu ko partie prenante yi nekk askan bi nekk jeunes yi nekk les les organisations féminines nekk les services départementaux ñu defaat li nga xamante ne moom mooy ay CDD muy le comité départemental de développement def ay CRD mu mujj si le conseil présidentiel euh, sur l' emploi et l' insertion donc des jeunes. Mhm. bi ñu defee nag li nga xam ne moom mooy jàngat boobu li ci génn mooy. Euh, le sous le, le chômage est au niveau du Sénégal li ci génn mooy il une faible territorialisation des politiques liées à l'emploi li ci génn mooy dafa am benn faiblesse ci synergie mooy structure yi nga xamante ne ñoom ñoo ceytu mbirum emploi employabilité dafa desee am synergie li ci génn mooy tey ressources locales yi nga xamante ni tey ak lépp lu jëm sur la chaîne de valeur niveau local maanaam euh, des nañ kaa maîtriser waaye li ci génn mooy aussi li nga xamante ne moom mooy côté formation professionnelle technique am na inadéquation entre euh, filières yi ñuy joxe ak li nga xamante ni moom mooy ressource au niveau mm-hmm. moo tax aussi l' état du Sénégal def ay formulation mettre stratégie boo xamante ni tey li muy gis mooy territorialisation des politiques liées au niveau de l'emploi et loolu mu prendre en compte li nga xam ne mooy équité sociale prendre en compte li nga xamante ne moom mooy inclusion sociale mu génne ni am na dispositif boo xam ne war nañ ko taxawal mais waruñ ko taxawal à l'échelle des grandes villes dañ ko war a taxawal au niveau déconcentré ci loolu moo tax ah. le le le Sénégal mettre en place euh, le 25 mai 2021 dispositif bu ñuy woowee le pôle emploi entrepreneuriat pour ah. les